الحمد لله والله إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله والله إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله والله إله إلا الله 가지고 fexe leen ñu jubal sàppe yi rek mbagg ak mbagg tànk ak tànk julli gi la bokk allahu akbar allahu akbar allahu akbar أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر เยอะขึ้นเยอะขึ้นสลออิดินัสลาตุมุสตะกีมสลาตุลลีนอัลอัมตะลีฮิไกรมักดูบิอะลัยฮิมอามีน سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي خلق فهدى وأخرج فجعله غثاء Você não foi encontrado, você إنه يعلم الجهر وليسرك لليسرك زيادة من يخشى ويتجنبها المسك الذي يسر ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فاستغفر بل تؤثرون ولا خلق خير إن هذا لفي الصحف صحف إبراهيم الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله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 أهلكنا من زكاها ومن خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أصحابها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه وانزل عليهم ربهم بذنبهم فسقناها فلا يخاف عقباها الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله Allah. Allah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما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 لكل مؤمن مسلم محسن سعيد واشكر الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يقتقيه صلى وسلم عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه وأوصيكم فيه وبعد بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأفعال لوجه الله تعالى الخائد وأحذركم فيه وبعد على أن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإنما اختاره الله لكم هو الجامع للسعادات وطوبى لمن لا يلتفت إلى خير ربه ملازما ما اختير له من منير لبه وويل لمن خاده إبليس إلى ما شاء فإنه يلازم ما أغزى وأساء قال الله تبارك وتعالى وما آتيكم الرسول فخذوه وقال تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه سلاما معتسون وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضير وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلاما جاد بانتقاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأوصيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذوي الحسد والعدوان bi an laa tufaariqu maxtiira lakum abada fa inna mufaaraqatahu tajurru ilaykum alaman wa kabada wa anhaakum an ficli kulla ma lam yatabayan lakum kawnuhu sawaaba fa innahu lima yuwajjihu ibtilaa gayrikum al ajra wa ridaa wa sawaaba wala tatlubu alkarama bi gayri taqwa fa inna alkarama huwa taqwa ولا تطلبوا العزة من غير العزيز المعز بجاه عبده نبيه رسوله العز فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميل يا أيها الناس اعبدوا ربكم ittaqillah haysu kunt man kaana yuminu billahi wal yawmil aaxiri falyaqul xayran aw liyasmut qad axbarani rasulullahi sallallahu alayhi bi aalihi wa saxbihi wa sallama wa baarak anna man taaba min ummatihi qabla mawtihi fa innahu yashfau fiihi inda mumiiti mayti wa anna man lam yatub minhum tawbatan nasuha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 سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فاحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتقى عليه السلام بجميع مقتفيه فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق بفضل من جاد بفضل بفضل رب فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يسخر بكل ما من الخير يصطفيه فاطلبوا فيه من الله تبارك وتعالى خيره يصرف إلى غيركم غيره wa tuubu fiihi ilayhi tabaraka wa taala min jumlati al isyan fa innahu yaxfiru lakum wa yakuffu ila gayrikum dawi tuxyaan wa tawajjahu ila rabbikum bilkitaabi wassunna wal ijmaa fa inna allaha tabaraka wa taala yakfiikum man abaw fiihi al ijtimaa bijaahi dil xazawaati al murdiya sallallahu alayhi bi aalihi wa sahbihi dawil ardiya alhamdulillah alhamdulillah alladi lam yattaxis walada walam yakun lahu sharikun fi lmulk walam yakun lahu waliyun min addull subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin allahu akbar allahu akbar bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi nuyu mbokk jullit yi fi teew yëpp ci bis bu mag bii nag di bisu gëm yàlla ak topp yàlla bisu sant yàlla nga xam ngeen bis bi ko waral mooy Seydina Ibrahima ngëmam gu sell googu mu am suñu borom ba taxoon yàlla digal ko mu rey doomam mu nangu ko lool ngir nangu dogal ba mu nangu na ko yàlla teggil natt ba wattee ko am xar loolu mooy sunnas tabaski kon tabaski daal li ci mën a wax mooy koo xam ne yàlla man noonu la na ko def ndax def gi mooy wane ne nangu nga digal suñu borom liñ ci mën a jàngi mooy képp bépp jullit boo xam ne nangu gëm nga yàlla dangay ngay nangu dogal ab dogal boo ko nangoo bu soobee yàlla ci gëm ko te gërëm loo dogal la yàlla dana wotti sa njàqare mbégte ndax bu fekkoon ne bi tey yàlla euh, muñutoon ma du ca man lenn te bu muñee nangu ko moom doom bi yàlla wottee na ko euh, xéewal bu bari ba tax tey képp kuy def tabaski sunna sayyidina Ibrahima ngay def di ko def sunna sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, xutba bi ñuy jàng nag mooy xutba bi Sëriñ Tuubaa def ci correcteur bi suñ ko baaxoo waxee xutba bi boo ko dee tënk wiisu rekk ci lislaam mooy topp ndigal mooy li nga xamante ne bii yàlla wax la ko nga jéem ca def ko nan ko la nga ca mën lépp lu yàlla tere nga bañ koo def te boo koy defit bu ko defee sa xalaat bu ko defee toppandoo waaye da koy def ci topp li nga xamante ni mooy sunna Sayyidina Muhammad kon ci gàttal mooy loolu mu dellu wax ci ne xutba bi ne képp koo xam ne yaa ngi wax rawatina ci jamono ji nga xam ne wax yi daa bari bu waaye man di wax nay wax loo xam boo waxuloo boo mënta wax lu nga noppi te di wax loo xam ne xamoo ko képp koo xam ne maanaam yaa ngi dund nga xam ne tuub war na la bala ngay génn àdduna boo tuubee bàkkaar boo mos a def sa ndaw boo tuubee yàlla dana la ko faral mel ni mos def bàkkaar kon daal ci gàttal noo ngi jéggalu ñëpp di baalante àq ñëpp te xam ne jullit yi li ci ëpp solo liy secret bi mooy dajak julli ji ak seenu xame ak seenu bi loolu mooy daja lislaam kon sëriñ bi bi nga xamante ne bii mooy Seexul Xadiim mi nga xam ne ginnaaw yàlla moo tax ñun taalibe bi yëpp ñu bokk di ànd di liggéey ci yoonu yàlla neen nañu ko yàlla fayal loo ngi sant bu baax di ñaan yàlla Cheikh Mourtada bi nga xam ne moo sabab tey bërëb bii tey bañ mañ fay daje yàlla na ko yàlla yokk leer loo ngi ñaan ba tey Cheikh Sidil Mokhtar bi nga xam ne tey moo yor caabi buntu kër Xaadim Rasul yàlla na ko yàlla yokk wér jàmm te may ko liggéey yi muy bëgg a liggéey yàlla def ko ci yoonu Serigne Touba yal na ko yàlla mot ci ñaanal mboolem kilifa yi diine bi di siyaare bu baax jataay bi ñu nekk ki nga xam ne tey moo fi Serigne Touba tey ci jotaay bi ñu koy waxee mooy Serigne Abdou Lahad mu Cheikh Mourtada ak Serigne Mamadou Khabane mu Cheikh Mourtada ak mboolem kilifa yi fi teew ànd ak ñun guddi gi loolu day wane na rek barab bi Serigne yi am yëpp Touba la ndax fépp fu ñu fiy teew ña nga fay def la nga xam ne. moom lañu def Touba rek kon ñu ànd xam ni bërëb bii Touba la ci ñun toolu àllarba la ci ñun kenn kum doon ci ñun na ci def la nga mën di ci wax lu baax di ko ci def ndax mooy suñu Touba mooy suñu ba yàlla dañoo eh, Sëriñ Mourtada dana koo jege rek ngir suñu taali bi gën a yomb ci ñun ndax bu fekkoon dane woon tey balaa kenn julli tabaski nga ñëw Touba dana sonn lool wala balaa kenn julli correct na nga ñëw Touba di koy kon taali bi foofu nu def kon nag ñu xam ne daje gi ñu jàppale ñuy daje fii loolu xéewal la ci ñun lépp luñ ci defee suñ bopp rek lañ ko defal man amila saalihan fa li nafsihi lu waaye def rek lu sëñ bi wax ne nañ ko defee boppam taxut waaye ci ñun rek lay dellusi kon yàlla yàlla defal dégg topp yàlla ñu yàlla may fekk déwén déwén yàlla ñu yàlla may defal wér ak jàmm ak xéewal bu baree bari ba ñu delluwaat ci réew ci jàmm yàlla may ñu jàmm fii ñu nekk may ñu jàmm ci réew ma ñu nekk may leen lépp lu ñu dugg yàlla def ci xéewal kon maa ngi tàggoo foofu di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaane yàlla yàlla yóbbuwaat leen ci jàmm képp ko li ñu fàtte yi fàttali rek mooy bu ñu jullee tabaski maanaam saa yooyu jullee farata deel wax allahu akbar allahu akbar ñetti yoon naan allahu akbar allahu akbar laa ilaha illallah walillahi alhamd loolu saa yu jullee farat na ngay wax ba ba fajar euh, bisu talaata bu loolu nekk loo xam ne sunna la kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xam naa di bàyyee kàddu bi euh, sëriñ Modou Xaban sëriñ Abdoulaye wala sëriñ Modou Xaban ñoom it ñu sànni si kàddu yi dénkaan yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu yéen mbokki jullit yi fi daje mbokki talib yi ci digalul si ñëpp laxat mooy kilifa jotaay bi tey ñu ngi am mbégte baax ci jot leen teg yéen ay kàddu muy kàddu yi soññante rek ak eh, balante ndax bis bi loolu la jagoo bisub mooy ñaareelu bisub iiti lislaam nga xam ne eh, lislaam ñaari ayit la am muy kori ak tabaski bii mooy ñaareelu iit gi mu doon bis boo xam ne jullit ñi dañ cee war a siyaarante war a war cee balonte ak ñu ko imaam waxee rek dundal sunna sunu maam Ibrahima la ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waroon wax ne tabaski leen ndax mooy seen sunna si bàyyi Ibrahima di wax jullit ñi mooy bàyyi jullit ñi événement bu rëy rëy xew ci comme ni xamee suñu borom nattoo seen ngëmam fu mu toll ren di loo ko doomam mu nangu ndigalul yàlla doom ji it ba léegi loolu des fi di symbole boo xam ne dafa bokk ci symbole lislaam yi mu doon sunna su feddli ko soo xam ne li ci li ci ci feeti lislaam yëpp yi ci mooy tudd yàlla ak julli la def waxtu bi dagg na naafila ci la ñuy ci la ci la julli gi ci ci la ci la ñu mën julli ba bëccëg di jot waaye julli naafila itam wala xasee raw doo ko fay julli ñaar rakkay fajar rek la ñuy fay ci naafila kon bu ñu bu ñu jëfee ndigalu suñu borom loolu yoxe sunna si li ci des mooy ñun ñu eh, muy occasion boo xam ne dañ ci war a soññante kon balante ci yàq di ko sëriñ bi tënk ci xutba bi rek a tënk ci makaarimul axlaaq muy jikko yi ñu tànnal yi ñu suñu borom tànnal ci ay pas-pas ak ki jikko loolu la wax ne na ngeen eh, fa inna maxtaara allahu lakum huwa aljaamiu li saada di leen yàlla tànnal moom ci la seen pexe nekk di waxaat mu alxayru fi maxtaarahu almuxtaaru laa fi lu laa fi ladi nufusukum li yàlla tànnkat bi tànn rek mooy li ñu tànn te suñu borom li mu ñu tànnal mooy pas-pas yu baax yi ak jikko yu baax yi mu tudd ci xaddis bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon Abu Dar ne ko ittaqillah xaysu kun wa atbihi alxasana wa atbihi sayyiat alxasana tamxuha wa xaaliqi naasa bi xuluqin xasan na ngay na ngay ragal yàlla foo nekk te boo defee ñaaw def na nga ca toppal jëf bu baax ndax mu far ko te nga ànd ak nit ñi ci jikko yu rafet jikko yu rafet yooyu nag moo mën a yàggal bu ànd te boo xoolee suratul xujuraat nga xam na mooy constitution sociale bu jullit ñi jikko yooyu rek ak li koy yàq moom la ci moom la ci sunu borom di wax li koy rafet ni la ci jiitu mooy eh, am kilifa nangoo am kilifa te wormaal ko li mu doon wax saxaaba yi yaa ayyuha alladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulih wa taqullaha inna allaha samiun alim ba ci yaa ayyuha alladina amanu la tarfau aswatikum fawqa sawti nabi yooyu ci la ci la taalibe yi ballaloo ak taalibe mooy mooy ay yi nga xam ne moo wax wax ci diggante nit ak kilifaam kon moo jiitu ci loolu la ca des mooy ànd bu ñu bëggee mu mu yàgg te dëgër dañuy moytu di dégg ay rumeur ci ay mbett lu ko yàq in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu bi ci des mooy ay këral bu amee ay ay xuloo ak i werante ci ñi ànd ñu nekk ñi ci am xel yu rafet dañuy sol seen dàll ñëw euh, dox ci tànk a rafet ba ak juboo am déggoo am wa in taifataani min almuminina min almuminina qatlu fa aslihu baynahuma fa in baxat ihdahuma ala al-uxra fa qaatilu allati tabgi xatta tafiya ila amrillah fa ci inna moom moom nag yaxul bi ci des mooy di moytu xeebante xeebante ci ay xeebante ci jub xeebante ci euh, am am wala xeebante ci askan yaa أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ak loolu day day yàqu ànd yu bëree bari loolu koy yàq ak di woote loo mënul ak ñaaw njort ak di jëwante ak di yëddonte yooyu man nga ne moo tënk ayatu sur suratul xujuraat nga xam ne buñ ci bu ci jullit ñi të ko danañ ànd ànd bu rafet ànd bu rafet boobu nag moom lañu sëriñ bi bëggal kon nañu ko nañ ci nañ ko nañ ci jéem a taxaw bu baax a baax lépp lu ko yàq ñu moytu ko kenn ku la nga yéen sa bopp nga yéen ko sa morom ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sa doon na wax ne kenn ci yéen bu gëm lu mu bëggal bopp mu bëggal ko mbokkam nee te du ngeen du ngeen dugg àjjana ngeen gëm te du ngeen gëm dara ngeen bëggante te ku am na loo xam ne ma wax leen ñoo xam ne bu ngeen defee da ngeen bëggante mooy da leen tasaare bu nuyoo salaam seen diggante kon loolu mooy mooy mooy njariñal ànd li koy dëgëral mooy bëggante mooy lu ko yàq ci ay jëwante ak ki yëddoonte ki ñaa ñaaw njox ñu ko ci sotti fujuraat yàlla nu yàlla nangul ñu ngi nuyu ñëpp di seet ñëpp di baal ñëpp baax asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu waaw asalaamaaleykum fu waay toog na tàllal loxo sëñ amin amin amin ya rabbal amin ya rabbal min bak amin tifi leen taraayo wajjahtu kulliya bihamdin wa shukur ila waliyil mu'minina was وجهت كليا بحمد وشكور إلى ولي المؤمنين والشكور كن يا ولي يا قدير يا نصير للمؤمنين إنك الهادي البصير أذهبت فورا لسبانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا السمن أذهبت فورا لسبانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا السمن أذهبت فورا سوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا السمن أذهبت فورا سوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا السمن نفعتنا بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان xafistana bihi wa bil islaami faltaxfadil kulla an il madaami qadamta sayyid al baraaya ahmada wal anbiyaa war rusli yaa man xumida القدس asu bilaay mina seytaan bismillahi rahmaani rahim mbokk julli mbokk taali ñu ngi leen siyaar euh, tey nag moo doon bis bu mag di bisu it tabaski comme ni ko ilimaan ji waxee rek noo ngi sant ñëpp sant taalibe yëpp ñaan Sëriñ Tuubaa defal nu xéewal yokk fan yokk wërsëg sant taalibe yëpp yal na yàlla defal jàmm defal ko bépp taali jërëjëf ñëpp di xamal mbooloo mi ne leen maanaam jamono bi ñu toll jamono yi Serigne Touba Mbacke li ci gën ci jamono bi ñu toll mooy liggéeyal Serigne Touba ndax fi mu nekk nii julli jafe na def lu baax jafe na woor jafe na lépp lu yàlla sa jafe na ñu ngi koy def waaye nañ defuñu ko nañ ko war a defee ndax jamonoy xat-xat àddina yi ak soxla yu bari yi ak xalaat yu bari yi waaye àddina fi mu nekk nii li ci gën mooy liggéey Sëñ Tuubaa yàlla nañu yàlla xëy ci liggéey Sëñ Tuubaa jërë jëf ah? waaw waaw ñu ngi sant xanaa di sant bu baax rek sant Seexul Xadim rek di gën a bëgg rek jërëjëf sax Mamadou yal na yàlla yal na yàlla yàlla fayal di jaay Ahmadul Xadim ñun ñëpp a ngi bokk di bëgg di ko ñaanal jërëjëf jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, ñu ngi leen di sean di déwénal sunu mbokk yëpp mbokk jullit ñëpp di leen balu àq. di ñaan yàlla ñu fekk ay at yu bare bare bare bare yàlla defal ñu gudd fan may nu wér gu yaram te kilifa gi ñu yàlla joxit yàlla may ko kattan te dolli ko ay mën-mën yéene gi mu am ci liggéeyal liggéeyal sëñ Tuubaa yàlla na koy yàlla yóbbu defal ko ci lu kawe njortam te ñuy barkeel rek ci bis bi di baal ñëpp rek di ñaan yàlla it yàlla defal ñu jàmm defal ko mboolem jullit delloo si yokkal na ay xew kon nag noonu rek jërëjëf si am na ñëpp jërëjëf